voilà euh, egsi nañu ci euh, ci diggante waxtaan bi sanu war a sekk ak euh, Abdou Guité Seck donc ma daal di leen di bàyyi sanu waaw xadi colonel xanaa di ko nuyuwaat di ko dalalaat suñu plateau petit déj Abdou Guité Seck. merci di la dalalaat encore une fois. merci beaucoup. ñu gis ne ab Guité Seck kenn dootu ko présenté ci même réew si wéy yu neex ak yu dëggu yi nga xam ne ni jot nga ko fee def euh, nga débuté sa carrière si orchestre régional bu euh, Saint-Louis nekkoon lead vocal bi en 1992 ginnaaw loolu nga nekk membre fondateur du groupe Work en 1995 mm-hmm. après loolu naka si nga daal di fondé sa groupe pour tudd révolutionnaire évolution évolution mm-hmm. euh, du moins mm-hmm. nan nga def ba fondé loo groupe boobu noonu ndax di tout bi ma dellu see euh, jóge bitim réew euh, ci laa ni aw ma droit mhm. di xaar. ndaxte fekkoon na sunu contrat a été fragilisé ñoo ngi woon chez BMG. Mhm. Sony moo ñëwoon jënd BMG. Mhm. donc ma euh, te bi mu jëndee BMG dafa privilégié catalogue am donc ci diir boobu laa ñëw nag pour apporter ma petite touche dans le paysage musical sénégalais. ma ni euh, naa tàmbali génne suma album premier bi di évolution ñu duppee ko sunu turu groupe muy évolu Abdou Guité et le groupe évolution neex na ñu gis ne évolution defoon na buzz ràññee ki nga xam ne moo di Abdou Guité Seck mais ñu jékki-jékki gis Abdou Guité def raar bi toog ci coin pour gis ko sax ci télé yi wala ci yenn euh, événement yi doon lu jafe lool lu waraloon loolu. dëgg la oui parce que tout simplement euh, sentiruma woon nécessité ñëw toog ci télé yi ndaxte tout maa ngi nekkoon di ressourcé wu pour indi lu bees lu extraordinaire yàlla def na tey loolu yegg na moo tax ma ñëw pour présenter ko Sénégalais yi ci album bi nga xam ni moom mooy Njukkal te disponible ci marché bi. Euh, toog toog boobu noonu dellu si waat bi parce que euh, seen am na ñoo xamante ne bu ñu la euh, gëjee gis rek dañuy tourne ci ci mm, yeneen artistes yi nga xamante ne ñoom ñooy xew ci c'est normal c'est normal donc boo dellu si wee c'est comme si da ngay recommencer à zéro war a séduiraat ku nekk ak na ngay dikkee rek gis nga xol am na xol yi nga xam ni boo ca xasee ba dugg doo ca génn mm-hmm. tey boo ñëwee avec une production bien préparée ak une qualité extraordinaire soo ñëwee boo boo ko tegee ca place am rek dafay nekk donc loolu laa gëm euh, li ma gëm mooy indi li nga xam ni dana laaj toog ci média yi waxtaanee ko farañ fàcce ko parce que dafa war a doon njëriñ ci nopp ba koy dégg mais nag après travail communication la il faut il faut il faut que nga nga nga feeñ il faut que ngay jouer ay spectacle il faut que nga demlanteek ñoom soppe yi réunion yeeg yooyu stratégie yëpp nga teg ko ci loolu la ñu nekk di liggéey dëgg la balaa sax te toujours si parcours bi ñu gis coono àdduna titre bu boo xam ne nii boo ne ko tag rek nit ñi da leen frappé mhm. mu doon titre boo dund wala da nga jékki-jékki rek noonu mu ñëw sax waaw dafa doon titre bi nga xam ne dafa méngook àdduna xam nga àdduna ku ni àdduna rek ni coono waaw donc ba ba ngay sàngoo suuf kërti kërti rek mm. donc kon loolu moo tax ñu gis ni titre bi buñ ko bindee dana méngoog jamono te même buñ fi jógee tamit way wi dana continuer di dund mm. yàlla def buñ ko bindeeg léegi mat na fukki at waaye ci album bi soppe yi ñoom ñoo def seen ay réunion ni ma dañu bëgg remix dañu bëgg nga revisiter nu suñu répertoire bi nga xam ni c'est un patrimoine pour ñun ñoom ñoo tànn coono àdduna moo tax ñu tëggaat ko ak bi façon. ba tax foofu sax lañu ñu jaaree dem xool li nga xam ne moo di remix coono àdduna bi nga paree. jël ça sera avec plaisir. mais nag balaa album bi di génn. Mhm. dama gisoon Abdou Kité mu nekk ci wàllum sàmm la xaw ma bay. non ci wàllum bay. ci wàllum bay ci wàllum bay. def raa toog di bay. parce Passion que je... là, voilà. non j'étais parti c'était je faisais de la musique en fait okay. j'étais parti chercher des notes mmh. chercher des, des harmonies des couleurs me ressourcer mmh. me rafraîchir la mémoire donc ci ci ci ci ci ci tool yi man rek suma baat jolli ma xam ni natt lii mu daw suma yaram ma xam ni mm, nii mu dawee suma yaram bu ma ko ñëwee def ko ci album jox ko sénégalais yi dana daw seen yaram dana yegg ci seen xol loolu laa wuti woon te yaakaar naa ne jàpp nañ ko c'est que mhm. euh, mhm. dafa mel ni dafa tombé ak invitation bi yàlla rek a tax may wax mhm. damaa toog ñuy wax ci yow wax Euh, ñi doon wax ñëpp. ñun ñëpp dañoo bokk benn kàddu te moom laa lay kii euh, Abdou qu'est-ce qui se passe lan la parce que Abdou bu dee wëy mën nga ko. Mm-hmm. wëy mën nga ko sincèrement amul xam nga euh, Abdou Guèye Seck man. Mm-hmm. bi may commencé di di di yow fi nga commencé man ma waa man pour man <laughs> non wax nga dépassé fii man bokk loolu sama xalaat la peut-être nag mën nga kii. mais waaw yow sincèrement non am nga. am nga voix bi am nga eh, kii inspiration bi texte yi day riche comme ni koy wax te te booy wëy day dugg ci xol nit ñi waaye qu'est-ce qui se passe lan la il faut le demander au bon Dieu <laughs> est-ce mais non moi je marche à rythme man artist la damay def li ma sentir te muy dëgg ci man su fekkee dama war a dem Euh, orchedière war fa toog ñetti at pour génne mélodie ba nga xam ni moom mooy yëngal sama buumi xol dama koy def su ma ñëwee nekk ak suma gars yi nag dafay neex macha allah peut-être xër gi gi ci soppe yi xër gi ci yéen moo tax ngeen di waxe noonu mais yaakaar naa ne yàlla noppi na démb je suis heureux et je suis bien au plus profond de moi-même je marche à mon nii la yëfi ko nangu rek je ne peux pas plus que je peux li dul man mënuma ko génne du ma romb nit di waaxu ba ma ni damay daw te fekk amee mooy tam bien non non non non c'est non c'est en fait parce que je pense que c'est logique la quoi uh-huh. xam nga maa ngi doon dégg ñu doon passante benn proverbe bu ma lire bu ma neex suma benn euh, sama papa kii kii sama batteur papaam uh-huh. moo ma ko envoyé mu naan New York ak Washington New York moo rawee Washington deux heures ça ne veut pas dire que euh, Washington dafa tardé ci fuseau euh, euh, fuseau horaire am la nekk donc ku nekk dafa am benn biddéew dafa am yoon bu muy jaar mu may waxati tamit am na ñi nga xam ne dañuy am seen baccalauréat à vingt ans après ñu toog juróom-benni at duñu am liggéey am ñu koy am à vingt cinq ans xëy am liggéey tas tas àdduna ñii dañ koy teel a am teg ci ñaari ak génn àdduna et cetera kon on revient sur terre. man beneen pensée laa am beneen philosophie mais l'essentiel c'est que je suis positif dans ma tête. je me sens bien et je donne rendez-vous à tous les fans pour casser la baraque et démontrer une belle facette d'Abdou Guité Seck. Malick euh, Gakou. oui voilà mu mu bëggoon xam lan moo tax nga jël euh, morceau euh, lëmm waaye ci waaye ci benn homme politique est-ce que xalaatoo ni mën na frustrer ñeneen ñi wala mën na peut-être ñi nga xamante ne àndul ak ñoom mën am na lu mu leen di gaañ. très bien macha allah euh, c'est bien que tu es passé à côté <laughs> parce que dans cette chanson way boobu nga xam ni way naa ci Malick Gakou au moins il cent personnes yu ma ci way. ah du moom kese. <laughs> au moins il cent personnes. d'accord en bi ma tàmbalee suma carrière ba tey. y a tellement de gens qui se sont donné corps et di ma accompagner yii ni ma tam masuñu faillir ci désir boobu de me voir toujours émerger et tout et Malick Gakou en est un des pionniers. Mhm. Malick dafa da damay ànd ak moom mu doon ànd bu sincère bu dëggu Malick li doy waar ci moom. mooy su la nee fii ak ñetti at huit heures pile daañu gisee huit heures moins quart bu jotee moom moo lay woon ni sama rak mbaa ci yoon bi. parce que benn wax boobu da koy jàpp muy dëgg ci moom. Mhm. muy borom yërmande di borom mbaax. mënuma toog fii di énumérer euh, li nga xam ne ci mbaax parce que bëgguma mu doon clin d'œil wala walla wala wala woyaan comme nin koy. mais. c'est des relations pures valeurs yi nga xam ni moom laa gis ci moom gis ko nag ñi ma way ci morceau boobu yépp gis ko tamit ci ñi nga xam dana ñëw parce que njukkal album njukkal bi jàpp leen ni c'est une première page du livre qui vient de s'ouvrir mm incha allah album bu may génneeti rek dinaa euh, dinaa dinaa way njukkal njukkal nit ñi nga xam ni kenn du ñoom te ñoo waral ma doon ki ma doon. ak dama mm-hmm. xam naa ne xam naa ne xam naa am nga ko. xam naa am nga ko. <laughs> Ah, sa benn question <laughs> ah, ah, waaw ko sàcc. naa xool ndax moom na wala. yéen a ngi mel xool ndax. dëgg la samay pensées mais grave. Abdou euh, waaw. <laughs> moom tamit si la bokk. la nature est grave quand même. waaw euh, li ma bëggoon wax mooy ku ne artiste ne porteur de voix nit ñi dañ lay déglu. ma gis euh, ñaari fan ci ginnaaw nga euh, wax ne. que gouvernement bi dafa mel ni ñi ñuy jiite. Mhm. joxuñ leen gëdd bi nga xam ne ni yéen moom ngeen xaar yéen artistes yi dañoo tëx très bien très bien lan nga gisee politique Sénégal parce que xam nga jour boobu bi ñu koy wax fii dëgg la dama ci tontu mm. ma ne la sama xalaat laay jox mm-hmm. Abdou Guité Seck a raison loolu nga wax xam loolu laa ma ne li mu wax ci parce que xam naa ñi muy waxal ak man tamit ni may dundee ci dëkk bi moom bon tey nag xaw ma nag yan motivation. moo ko yé moo tax ba mu wax loolu. nag a xam yi. ok xam nga. tubaab dafa ni. Hmm. un mot n'a de sens que dans son contexte. Hmm. te malheureusement. Hmm. Euh, Sénégal dañu tàmm di jël benn titre walla benn bind rekk exploité ko extrapolet ci yeneen i sujet yu bokkul ak source bi. ça c'est une chose sunu doomu ndey tamit journaliste yi xam ko ba tax su sunu defee benn interview bi nga xam ni bu am sens la am profondeur tamit ñoom tamit lii tax ñu gën a jaay rek moom la ñuy génnee parce que noonu lu sénégalais yi ñoo ko bëggee noonu mais wax ji soxlawul interprétation parce que dafa am noblesse bu extraordinaire bu ko wër li ma ciy joytu moom la samay morom di joytu moom la suñuy culture suñu culture di ci joytu en tant que jeune man je me sens pas je me sens pas euh, euh, comment dirais-je je me sens pas aidé pour dire simple. comprendre lan nga yaakaar nguur gi bu ko defee jàppale leen. benn bi ci jëkk. mooy dimbale nu à ce que ñu mën a dunde li ñuy coono. moom lay way ci coono àdduna mhm. dama ne suma jiwee ananas naa am ananas mhm. bien que su ma tëddee di nelaw na am li ma yellool mhm. mooy ko tëdd di nelaw waaye suma reyantee ba sama album tey qualité sonore bi ci nekk waykat yu gën a mag ci Sénégal qualité sonore booboo ci nekk tamay ndaw di demee su may moyen de bord je pense que yelloon na le minimum de protection mais su ma xëyee dès le lendemain nga xam ni investir naa su ma lépp ci biir dès le lendemain ma gis ñu pirater ko di ko jaay à ciel ouvert te amul ñoo ñu lenn lu leen contraindre dafay xaw a doy waar day diis te loolu du tey lan ko jooy du tey lan ko tàmbali jooy moo tax ma ni on dirait que ceux qui nu gouvernent nous prêtent sourde oreille waxuma ils sont sourds waxuma danoo tëx mais dama ni. dafa mel bu baaxul bi oreille voilà nopp en tout cas nopp tànqam lu lan nu jox. Mhm. parce que ndaw la bëgguma ku ma jaxaseeg autorité yi et cetera et cetera mhm. déedéet.